nan tey gërëm di way jii moom it ñëwoon na fii ci poroxaan ànd ak délégation boo xamante ni ci parti bi lañu nekk ñoom ñëpp ñu doon ziare xalifa général di murit sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir ci wàccaayu màggal poroxaan gi doon ko ndokkeel jébbal ko seenuk àddiya waaye salaat diggante taalibe ak sëriñam mu nekk nag ziar bu am solo boo xam ne amalaat na ko àndi ceeg mbégte gu kawe ginnaaw ziar bi am nay kàddu yoo xam ne taataan nañ ko ci moom. nu yàlla dimbalee nu ñëw poroxaan ziar si sëñ Muntaxa xalif général des Mourides sunu tànk yi ay tànku taalibe la tànk yu nu ñëw di ko sant sëriñ bi ci taxawaay gi mu am ci ñun tey senegaal kenn dootul werante ni sëñ mu taxaa jàppal nañu boppam bëggal nañu boppam téyal nañu boppam moo tax sama tànk yi gannaaw ñëw dellu yeesal sama njébbal mooy tànk ñëw sant ka tànk ñoo wax ka mbégte mu rëy mi ma am kon ñu ngi sant bu baax sëñ Touba te di jël suñu ñaan tàbbal ko si ay loxoom di ñaan sëñ mu Muntaxa yàlla na fi yàgg te te naa li mu song yëpp yàlla def mu man ka matal ba song yeneen i naal ñu ngi ziar bu baax te di ziar waa Poroxaan yëpp jërëjëf. ginnaaw bi mu ziaree Cheikh Mamadou Muntaxa Mbacke Bachir ba noppi. moom maître Madické Niang ak délégation bi mu àndaloon ñëw ci poroxaan dem nañ ziyaare ji soxna Baali Muntaxa yee salaat kóllëre gi nga xam ne dox na ci digganteem ak moom jébbal ko àddiyaam waaye ki nga xam ne moom moo di soxna si bég lool ci tànk yi nga xam ne maître Madické Niang def na ko ba ñëw ci Touba Mbacké fekk si leen waaye daal di koy ziyaare rawatina mu ñëw ba ci biir këram gi loolee nekk lu am solo loo xamante ni def na ko di lool soxna si wane na ci ak mbégteem bu baax a baax tollu neel amin ngir mu baawaan ngir mu am ngir mu jëf ba sant fi jaaraay jërëjëf rabbuna jaraw lak baali hakada cheikhina alxadim